je ne dis pas qu'il a raison. Mm -hmm. mais le le le droit. Mm -hmm. véritablement est de raison. je ci comprendre nga bu baax. waaw waaw waaw je dis pas qu'il a raison mais le droit est de raison. le fait que le droit soit de raison moom mooy tax ma ne te ñu ne dañu ne contrôle judiciaire parce que il est en instruction. Mhm. entendre nañ ko procédure bi yëpp. yaa ngi dégg instruction bi boucler nañ ko. Euh, le jour où le doyen des juges décida. de renvoyer l'affaire devant les chambres criminelles ouais. pour la tenue d'un procès ça c'est un mm-hmm. xëy na loolu dama ne dégg nga mu baax ne xëy na loolu moom moom la jàpp ba ba ba gis gisal boppam ni en réalité instruction jeex na contrôle judiciaire comme amatu fi àpp kon war naa mën a voyager mais Euh, encore une fois lu si mënti am. xam nga man mënuma geste bi bettuma. Mm-hmm. et puis heurtewul sama. lan bettiwul lan bettu la geste bi bi li mu def noonu c'est-à-dire que du ma ne non be am naa mbette si nit ki. wala il a wala il a heurté na sama conscience vous savez pourquoi. Mm-hmm. parce que dafa am jurisprudence bu fi am. Omar Sarr. dans le cadre de la cour de répression de l'enrichissement illicite maître il mm-hmm. était interdit de sortir du territoire. il s'est rendu en Mauritanie. te ce même Omar Sarr là bi nga xam ne moom. dafa nekkoon si liberté provisoire itam il siège où au conseil des ministres. mais mais jàppoon ni par exemple geste ah. Ousmane Sonko bi genre provocation la kooku <laughs> Gambie si biir Sénégal la nekk mun na wax ne génn ma territoire dafa doon traversé mu dem ba si foofu noonu pour wan affaire bi nit yi mënoon nañu ko bañ a xam mu dem ba si panneau xam nga Hadj Malick euh, ah, euh, encore une fois dafa mel ni rek nga ñëw ñu ma la en réalité yow costume costume bi costume bi nga sol nii solaloo ko parce que ngay ñëw plateau mm. dafa am bërki démb ay jeune fii yu la romb ne la yow la ñuy seetaan tey costume bi moo tax ñoom ngay charmer c'est la chose xam nga loolu yëpp interprétation la rek Kajoor interprétation la provocation aussi quelque part non quelque part quelque part je peux t'accuser véritablement de verser dans dans la provocation visuelle dans la provocation visuelle